julli juróom ñaareel ga ku ca julli juróom benn rakka bu ci ne faatiya ak kaafiroona ak lixlaasi lu ci ne juróom ñaari yoon laaya ju ci ne dees na ko ca bindal aw yiw dana mel ni itam ku saraxe junni te lu mu ñaan yàlla mu may ko ko te dees na ca bindal tuyaa bayu tol ni bisi at fu ci ne it dees na ko ca tabaxal njëndi lu rëy ca ajjana